sëriñ bi dafa wax ne sunu borom ci boppam moo ko digal ne ko nañ aju na woote ne man ab wéeruwaay laa nañ naa aju nañu aju ci man dalika fadlullahi yutihi alladi yasaauhu wa qaala li qul bi ludi wa qaala li qul bi ludi yonte bi nee na moo ko wax ne ko waxal gaa yi ne leen man na ngeen ñëw aju ci man sëñ bi wu bëggul ay mbooloo ku ne xam na ne fu masane ba mbooloo mi fekk ko fa dafay tuxoo gis ngeen mbàkkee kajoor la jógee ñëw mbàkkee bawal ne suut surko surko ja bari mu dugg mu ñëw daru salaam ne suut mu sanci Touba Touba bi nit ñi tàmbalee am ak njaboot góor ñi jigéen ñi jaxasoo jële fi jógee dem mbàkke bari mosula yite woon ñi waaye rasul lay moo ko digal tërbiya rabbi asxaabaka bil himmati bil himmati ginnaaw mu digal ko lii nag xul bii lu li xasida wa idaa xuyitum boobu yàlla mi nga xam ne nag moo ko sant jaare ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne leen kaay leen wéeru ci man mu woote ci ndigalul suñu borom daayan ilallahi bi idnihi yàlla moom moo ko garantir ay mbir yoo xam ne képp ko aju ci moom yàlla defal la ko la ca jiitu mooy ki aju ci sëriñ bi du dox ci vitesse boppam ci vitesse sëriñ bi lay dox te loolu sëriñ Tuubaa ko wax maanaam sëriñ Tuubaa benn aju ci moom tawfeex ju rëy la ndax jëmmi sëriñ Tuubaa day seexul xay maanaam bukkut ak nun ñi ku ci dem ni barsàq na ngay mel moom ba mu fi ne dund gim gi mu amee woon ba léegi moom lay dund bu sell googee dund gu ruxaanee ko kafaaniyal mamaata kafaaniyal baaqil mamaata sarmala loolu wax na ci lu bari bari yàlla defal ko itam li ñuy wax munal majaamia mooy tuuq yépp ñu dajale ko ci moom muy benn tariqa mallakani maliku kulli jaamii wa kulli masjidin munal majaamia te loolu da ko firee mooy lii xutta maa xaa maa faaqa bihi jaylaani alayhi ridwanu alladi alaani ilayya qutta ma bihi abulhasan faaqa bi xidmati nabi jettil hasan tammamta lii bi ma bihi tija tijaani a tijaani faaqa wa kunta lii bi maanaam turuq yooyu la ca nekkoon nañ ko dajaleel muy benn tariq tariqa moom la daa wax ne hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladina jamaau loolu tawfeex la itam ci ànd ak sëñ bu mel noonu rasul la itam jiital ko li mu wax ne qaddamani bushirtu anna rasulallahi qaddamani loolu wax na ci lu bëree bëri mais am naa ñu bégal ma ci ne rasulullah sallam jiital na ma ci kanam gaañ yépp yëmu ci loolu suñ wax na ne suñu borom ci moom da koo jox buntam ba nga xam ne kenn du ca jaar ci lu dul mu neex ko ataani llahu baabahu wala yumarru bil baabi illa bi mashiati loolu wax na ci wax na ko ci bër ci anam yu bëree bëri qaddamani llahu ala alxuddaami qidamu man qidamuhu qaddamani fi lxaali walmaali abqa amni bi mu jógee ci géej gi wax na ne suñu borom da ko def muy safinatu noox ga mooy gaalu mucc gi nga xam ne ku ànd ak moom mucc loolu it wax na ko ci ne bokk na ci yi ko suñu borom fayee ci géej gi kon suñ bu mel noonu itam nga xam ne suñu borom da ko bëgg ahabani llahu bila makrin wala suxtin wa kulliya alayhi uwila yàlla ku bëgg bëgg koo xam ni dara ci pexe wala lu ab safaan du ca du ca dugg bëgg gu sell la ko suñu borom bëgg noonu la ko rasul lay bëggee ahabani xayrul wara wa saxbu wa bi kitabati yabdu la laxdu yu bëree bëri ci ay yu kawe yoo xam ne su dafa wax ne suñu borom jox na ko ko boo ko na ci alquranul karim mu ne suñu borom jox na ma ko boo ko na ci allawhul mahfuz ak yeneen ak yeneen wax na itam mbooleem tarqiyaat yéeg ak xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom defal masalan ulamaaw yi ci moom lay jaar wa bi turaqi alulama akramtani ikrama faalin lima yuriduhu wa bi turaqi alulama wax na itam aqtaab yi séeri tarqiyaat ci moom lay jaar ajabani xayru baqin fihi qattaaba kulli wa raqa bima li qaada aqtaaba wax ne wa bi turaqi xisbaka alxufaada ak yeneen yu bëree bëri sëriñ bu mel noonu nga xam ne mooy centralu courant courant bi ci ci gàttal rek maanaam ñëpp ci moom lañ jëri courant kooku boo amee tawféex yi jokk ci moom di dox ci doxam dara gënu ko kawe loolu ci tawféex yi gën a kawe ci aju ci sëñ bi la bokk sëñ moo waxoon ne biya yaquudu kulla man taallaqa lahu biya yaquudu kulla man taallaqa lahu kama kulliyati qad atlaqa maanaam kenn ku aju ci man ci man la la suñu borom di wommate maanaam sab dox ci ci moom la àgg na sax ci wax ne li ñuy gis ci moom lañ koy gisee ci moom la ñuy xoole mooy doon seeni bët ilayya qaada bi ridaihi lmuraad wa bi yuri man bi taallaqa almuraad wa bi yuri man bi taallaqa almuraad moom la sëñ Cheikh Ibrahima Diop Machar yi waxoon ne walaysa yubsiru timsun illa bi ayuni bamba maanaam loolu tawfi mooy tawfiq bi njëkk moom nga xam ne moo gën a rëy mooy ànd ak sëriñ bi nga xam ne ak ni ko yàlla def ak cër bi ko suñu borom def jox ak daraja ji nga xam ne moom la am ci suñu borom ku mel noonu nga jege ko aju ci moom direct kooku moom tawfiq la joo xam ne dara féetewu ko kaw bokk na ci tawfiq yi nga xam ne itam ñi nga am na ci ñi aju ci moom yépp te mooy tariqa sëriñ bi de tariqa boo xam ne masaari bi yépp la dajale tariqa shukru la ak farax waaye tariqatu ilm la itam wa amalin bil kitab wa sunna maanaam ku xam tasu day gis ne am na ñoo xam ne dañoo jëm rek ci wàllu sant ak bég ci yàlla am ñoo xam ne jëm ci xam-xam moom nag dafa boole yooyu yëpp tariqa boo xam ne dafa tegu ci xam-xam ak jëfe jëf joo xam ni dafa tegu ci alkitab wa sunna waaye ànd ak farax nag billahi wa shukrillahi subhanahu wa taala te loolu moo waral màggal gi bokk na ci tawfiq yi nga xam ne képp ko aju ci sëñ bi itam yàlla defal na la ko mooy li sëñ bi wax ne ab leetar la boo xam ne ko bind kenn ci mag ñi mi ngi ci majmaa bu sëñ Mor Pende bi nga xam ne la ca ne lépp waxi sëñ Tuubaa la xam ne sëñ Tuubaa bu daa wax day am mag ñoo xam ne dañ ko daa bind moom ca la bokkoon sëñ Mor Pende loo añ bu ñoom rek bokk boobu sëñ sëñ Maxtaar Binta Loo ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne sëñ bi jotaay yi daal dañ ko daa bind majmuwaat yooyu ak bi chef de chef la dajale sëñ bi leetar bii da caa wax ko ki mu ko doon bind ne ko xamal ne anni jaaltu kulla man taallaqa biya li wajhi llahi taala alkarim fi yadi llahi taala wa fi yadi rasulihi alayhi bi alihi wa sahbihi salatu wasalaam na nga xam ne képp koo xam ne aju na ci man na xam ne jël naa ko teg ci loxol suñu borom tabaraka wa taala jël naa ko itam teg ci loxol Moustapha sallallahu alayhi wa sallam man loolu tawfiq gënu ko kawe maanaam boo sa aju wéré rek bul sikk ne yaa ngi ci loxol suñu borom maanaam suñu borom mooy moo mooy féetewoo sa mbir sëñ bi yëmu ci loolu dajaa teg ne wa kullu man taallaqa bi li mujarradi qasdi wajhi llahi taala alkarim bada rujuci min gaybati allati burika li fiha fala budda lahu min saadati daarayni maa kifayati hammayhima qataan képp koo xam ne ginnaaw bi ma jógee ci géej gi nga aju ci man bul sikk ne da nga am saadatu daarayni bu ànd ak tiis yeeg adduna ak alaxira jafe-jafe adduna ak alaxira yépp doo doo ci gis dara te loolu amul sikki saak xattaan wa man taallaqa bi te waaye nag loolu dafa xam ne mooy ñi nga xam ne aju nañ ci man te yàlla kese tax ñooy am loolu wa man taallaqa bi li xayri wajhi llahi taala alkarim almukarrimi bada rujui fa inda allahi taala tabaraka wa taala ma yuridu inshaa ataahu dunya faqat wa inshaa taradahu anni tardan yaqulu baynana wallahu ala ma naqul wakil képp koo xam ne aju bi mu aju ci man yàlla taxul ci dafa teqale ñi mu njëkk a wax mooy ñi nga xam ne yàlla kese moo tax ñu aju ci moom keneen koo xam nag leneen a tax nga aju ci man lu dul jëmmi yàlla kese kooku itam la ñuy sàkk ñaara ci am bu neexee yàlla mu jox ko adduna su fe su neexee yàlla itam mu teqale ma ak moom dox sama diggante ak moom doxale baaraas sama diggante ak moom ba ñépp xam ne kii bokkul ci man ñaar yooyu du am solo la mooy aju gi nga aju sëñ bi itam yàlla kese moo war a tax bokk na ci xéewal yooyu nga xam ne képp ko aju ci moom it yàlla defal na la ko ci barkeb sëriñ bi mooy li mu wax ne xassakum inna allah anna allaha tabaraka wa taala xassakum bima yaxbitukum fihi kathiru min ahli asri ñi aju ci man yàlla defal na leen loo xam ni waa jamono yépp danañ leen ci ñee loolu ci tawfeex yooyu la bokk bokk na ci tawfeex yooyu itam mooy li mu wax ne képp ku aju ci moom laa yazaalu yazdaadu kullama talaat shamsun madadan yatihi min sirri qawlihi taala wa allamnaahu min ladunna ilman wa kullu di taalluqin bihi laa yazaalu yazdaadu kullama talaat shamsun madadan yatihi min sirri qawlihi taala wa allamaka ma lam takun taalam dafa wax ne moom sëriñ bi ci boppam bis bu ne suñu borom dina ko tëbb ay tëbb yoo xam ne day jóge ci sekk rek li suñu borom wax ne wa allamnaahu min ladunna ilman waaye képp ku aju ci moom itam bis bu ne saa yu jant fekkee fekkee suñu borom dina tëbb tëbb yoo xam ne dafa jóge ci sekkareb li mu wax ne wa allamaka ma lam takun taalam xam ne al ilm al ladunni al irfani loolu ci la ci la ci la ci la dugg te bis bu ne nag ci lañ leen koy tëbb bokk na ci xéewal yooyu itam mooy li suñ wax ne képp ko aju ci moom suñu borom dina ko sàmm dina ko aar ci adduna ak alaxira loolu wax na ci lu bëree bëri mooy li mu wax ne li yaalam jamiu almutaalliqina bi an allaha tabaraka wa taala yaxfaduhum li wajhihi alkarim mimma yaummu gayrahum mimma yashuu wa yaduru fi dunia wal axira ko aju ci moom yàlla dina ko sàmm ci lépp luy lore ak lu dib safaan te loolu ci adduna la koy la koy suñu borom di di aare ci la koy aare ak alaxira yëpp yaxmi iyaali lmustafa fi abadi an shaqa yaxmi ilahi binnabi kulla man biya yaduudu ak li mu wax ne képp koo xam ne aju na ci moom faw mu am lu kawee njortam ci suñu borom loolu it lu rëy la mooy faasa muridun laasa bi bi maa yafuq maa zannahu billahi li ngay jot li ngay jot ci suñ borom lu ko kawe ngay dajal loolu it lu lu lu lu rëy la ak li mu wax ne képp ko aju ci moom suñu borom dina ko teral akrama rabbi kulla man taallaqa biya kama kulli bi amnin atlaqa ak li mu wax ne ku aju ci moom it suñu borom dina ko jariñ njariñ lu lu lu lu wér nafaahum dunia wa oxra naafiu bima bihi taatihim almanafiu ak li mu wax ne képp ko aju ci moom su moom dina seral xolam taabat nufuusu man taallaqu biya ak li mu wax ne képp ko aju ci moom su moom dina ko jox ay xéewal faasa muridun qaadahu qaadahu llahu ila taalluqin biya wa yaxza bil ila ak li mu wax ne képp ko aju ci moom su moom dina ko jéggal bàkkaaram yépp wax ne yaa xaafiran li walidi wa ummi wa lii laa tufdi adan ka xammi kama xafarta li dawi taalluqi biya li wajhika faqat yaa mutliqi yaa man afa an walidi wa ummi wa man yuhibbuni bi gayri xammi li mu wax ne itam ne képp ko aju ci moom yàlla dina ko musal ci seytaane loolu suñ wax na ko wax ne wahaba lii anna kulla man taallaqa bi saadiqan fi taalluqihi laa yatawajjahu ilayhi cheytaanu li yufsida alayhi képp koo xam ne aju na ci man te aju ga wér faw suñu borom dina ko musal ci seytaane seytaane du ko jublu mukk du ñëw ci moom saa yu seytaane ñëwee ci moom rek ñi ko jege te ajuñ ci man te ñooñee lay ñëw loolu la ko sëñ wax foofu loolu it wax na ko ci ay bayit yu baree baree bari najjayta man bi yataallaqu maan min ash-shayaatini yaqi muridillahu man tamarrada wa kullu man lam yanxu nafi turida ak salla man ma man bi yataallaqu alxabs min kulli cheytaanin ak saada wax na ne képp koo xam ne aju na ci moom yàlla dina ko defal ak texe kullu muridin bi yaloosu yasaadu loolu wax na ci lu bëri bëri wax na itam ne suñu borom defal na ko képp ko aju ci moom faw di nga am mucc ci mboolem nax-naxi adduna yi di nga am mucc alaxira itam li kulli man bi yataallaqa naja min kadari dunia wa fi yowmi naja wajjaha rabbiya li gayri man bi yataallaqu adan yulaaqi yulaaqil agbiya ak yeneen ak yeneen suñ wax ne itam ne képp ko aju ci moom suñu moom noo ko defal mucc ca sawaraw ëllëg najjaahum albaaqi min anniiraani dunia wa oxra wa min alxusraani ak yeneen ak yeneen wax na itam ne képp koo xam ne aju na ci moom ëllëg yow man xiyam buñ fa demee la gën ci la nit ñay bëgg foofee loola ngay am wajjaha rabbiya lahum bila intiha baada almamaati kulla xayrin yuslaha lépp loo xam ne am na solo foofee ñu di ko fa bëgg rek di nga ci am yow loolu ak yi demee ne moom ay tawféex la yoo xam ni yàlla defal na ko mboolem ko aju ci sëriñ bi ci nag ni ma ko waxoon aju gi nga fexe ba mu wér sabab yi nga xam ne mooy sabab aju gi yëpp